yi gën a fës ci yëglekaay yi marhaban dogal bu yeewi askan wi jël ngir teg ci suuf seen manifeste bu ñu namoon a amal ni ki démb ci laraba gi moom la mboolem yéeni kay xëyee ni ki tey jile Sud Quotidien nañu yeewi askan wi daal nay deltu ci ginnaaw ay klaxon ak i vuvuzela ni ki tey jile ci alxamis gi bu juróomi ñetti waxtu jote ya Walf Fadjri Quotidien daal di koy feelu ne yeewi askan wi fasile naa génnewaat ndab yi ni ki tey jile ya suñu naattango yi dafa bu jàngat nañu Ousmane stratégie bi i ay naqar jaare ko ci ay manifesté ci seen suñu naatangoy le quotidien ba di xamle ni bokk na ci li waa yeewi askan wi daal di deltu ci ginnaaw ci seen manifeste bi ñu namoon amal ni ki démb di ñaan bu leen ay kilifa diine ñaan ñu mel ni Thierno Madani Tall xaalif général omarien yi Ababacar Mboup coordonnateur sàmm jikko yi Mody Guiro secrétaire général bu CNTS Maodo Malick Mbaye ak yenn ci ay officier wu l'armée yu nekk ci retraite yéene kayu enquête nañu bile dogal bu Ousmane Sonko ak yenn ndoom jël ci biir coalition Yewwi Askan Wi ab deltu ci ginnaaw ak calcul lañ ko mën a jàppee yéene kayu Vox Populi daal di koy moom itam jàppee mbir bu ni mel ab acculade waaye itam jàpp na ni daa rax ay pexe yu ñuy nas di maanaam stratégie l'info yéene kaay nañu ci mujjuntal ba daal yeewi askan wi daa dinay sotti ndox mu sedd ci fitna buñ doon nemmeeku ci réew mi critique daa di koy feelu nañu daa dinañuy weer ngànnaay yi waaye fas yéene wu ñu bàyyi casserole yi jaa ngeen jëf